bu baax ku tedd ki noo ngi lay siyaare bu baax te di nuyu ci turu sëriñ Bachirou moom sëñ Fallu ak mboolem ñi ànd ak moom ci liggéey bi di leen liggéeyal ci alquran alquran mi nga xam ne mooy tool bu sëriñ bi te sun borom donnale ko ko moomale ko ko defal ko ci lu mu mës defal kenn mu def ci lu kenn mës def mbooloo mi ànd nag di ko ci liggéeyal ci tool boobu ñoo ànd ak man ngir siyaare si la ak sant si la ci li ñu weesu lépp bi nga xamee ne danga fay nekk ak say kilifa doon seen jëwriñ luñ mas a nekk lu ne ànd nañ ci ak yow bi nga demee ba doon sëriñ bi it buñ jaaxlee ci seenub liggéey dañuy delsi ba ci yow leeral la fi ñu toll fi ñu toll nag li ma ci njëkk a fàttaliku te barab bii tax sama xel dem ci mooy man mii li ma ci dugal mooy damay doomi sëñ daara suñu change bi bi mu doonee doomi sëriñ bi ci boppam daa féetewoo jàngale mu di liggéeyam kon doomi sëñ daara laal lu laal daara laal ma waaye dafa mas a ñëw tiib gii seeti sëriñ Basiiru sa waajur wu tàdd bu baax woowee bàyyi gi mu bàyyi woon tukki booba tax biñ ko ko yëgalee mu ne ndax day saaliwu damaa defe ne ma dikki dafa juum mu ne ko moo ne sang yi boo ah dafa naa ne saaliwu xolaat ko bu baax xolaat ko muy moom mu naa ah, bisimilah kon mu nuyoo mu ne ko ah mbaa jàmm la lu xew <laughs> mu ne ko jàmm la xanaa namm la bu mëntumaa toog rek moo ma seet si la yaakaar la jiitu loolu dana jege ñaar fukk wala ñaar fukk ak lu topp yu mu gëj mbàkke maanaam ah, bi mu egsee mbakke sax dafa soppi ko ci moom lool ndax gëj gu mu fa gëj yaakaar li may wax lépp yaa ma koy gën a xam ndax daaw leen gëjee te daa ngeen waxtaan waaye nit ñi laa bëgg ñu xam li may wax mu ne ko waaw waaye yow moom del toog rek ndax li ñu war a ne li ñu bëgg ne ñun ñëpp war ci aane nu ca nekkal te mooy alxuraan kon nag ñëpp la war a seet si waaye war seeti kenn yow toogal te ne ci liggéey bi rek liggéey boobee mu ne nag te ñoo ñëpp ñu nangul ko ko mooma may tey jii ma mën a ànd ak waa alxuraan ñëw seet si la seen bat xonq na jaaxle nañ jàq nañ fam nañ kenn ci ñoom tëj ko tëj doomi daara tëj waajur ya te mel ne nar nañ leen a toroxal ngir liggéey liggéey li ñuy liggéeyal alxuraan te yemut ci loolu njëkkoon naa am te mi ngi wéy di am te gag nañ jaaxle nañ toolub jàmb nag boo ciy liggéey ba gis loo xamul da dem ci borom tool ba yëgal ko ko ndax yaa fi nekkal sëriñ bi te sëriñ bi moom alxuraan maa ngi fàttaliku bis boo xam ne bi ñu indee article yoo xam ne arrangé wu daara yi la leen neex lañ ca bind te loolu bu wéyee du baax ci daara dañoo ñëw ma ànd ñu ba sëñ Sidi Muxtaar ñu leeral ko ko mu ne ma demal ngeen dellu te seen xel dal sama bakkan du ko fekke liñ wax liñ liñ ci wax du am du am danaa ci taxaw bay ba ngeen dem sama bakkan du ko fekk seen kanam yéen ñëpp yaakaar naa ma jàpp ne loolee mu ca def it yéen a àndandoo liggéey ba ndax lu ma sane lu ne yéen ko ànd te lu mu def yow la ko defal te foofee mu ne it fi nga ne nga dolli ci nag yow sa waaru bopp woo xam ne alxuraan dafa bokk sëb liggéey xam-xam dafa bokk seb liggéey ku la xam-xam loolu lii nag di loo xam ne ñaari yëfa ci am da ngaa yilif njaboot gépp sañ leen a di puso it buy ñawee ni ko sa waajur wa nekke woon ba gis nañ ci réew mi li nga fi ñaw lépp lu jaaxaloon ñëpp la kon bu ñu demee ba alxuraan jaaxle war nañoo ñëw boo leen digalee ñu def boo leen teree ñu bàyyi sart yi nga xam ne nag moo dox seen digg ak luwaaye te luwaaye mën naa ne li ci ëpp ay organisme international la yoo xam ne doxuñ ci lislaam atte boobuñ ci lislaam te waman lam yaxkum bi ma ansala allah fa ulaika humu zalimun wala fa ulaayikumul kaafiruun wala fa ulaayikumul faasiquun luwaa yoo xam ne ay nit a daje ba mu neex leen ñu ànd ko bind bu ëllëgee mën nañoo xëy xëy dindiwaat ko nituk lislaam du ci mën a tënku cent pour cent maslaa ko cay bàyyee waaye du doon lu mën a tënku mu mel ne nag luwaa yooyu yi dañoo moomut seen bopp ba di ci tënku waaye ci bitim réew lay jóge ba tënkaali leen waaye lam leen di tënke mooy da leen di won ne gone gi kenn waru koo tëj gone gi kenn waru koo jëng jëng moom mi nag di lu fi yàgg neexu fee dinni neexut a bàyyiloo nit ñi lu dul nag muy sa ndigal ñoom ñii boo leen ne bàyyi leen jéng ñu bakko ko ñi leen koy tere it boo leen ne bàyyi leen ñu continuer jéng bi ñu ba ko ñu ñu ñu bàyyi leen ñu jé ñu continuer waaye daal li ma gis mooy buñ ci waxut duñ jóg ci lii di jaaxle bisu seen ñu jàpp kenn ñu ànd ak ñoom ñëw ci yow te loolu moom dañ ko war a lijjanti mu féete boor benn yoon mu jeex njaboot gi yow la ñuy déglu boo joxee sa kàddu ne digal naa leen ngeen bàyyi jéng kenn bañ a jéngati mu jeex mën nga leen bu la soobee it nga wax ak ñi leen koy tere leen bàyyi leen ñu am jàmm ñoo xam nu ñuy yare seen i njaboot ñu yare ko de waaye daal jaaxle nañ jàq nañ te yaa fi sës kii nga xam ne jàpp nañ ko itam bu ñu sañoon lañ ci bëgg ñoom dañ ko ci am ndax buñ ko ci amee muy kersa ci ñoom di gàcce ci ñoom te mooy dañ ko fekk ci liggéeyam jàpp ko tëj ko toroxal ko fa waajur ya jàppale leen toroxal leen te suba lañ koy atte lislaam nag bëtam xonq na te yaa fi nekkal sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa fi nekkal yonent bi yor lislaam kon nag ñoom biñ jaaxlee tamay doomi daara moo tax ma ànd ak ñoom ñëw ci yow xamal la ne ñii jaaxlee tax ñu ñëw te bu mag la ko jëbbalee man wàcc naa loo leen wax ñu def loo leen tere ñu bàyyi ñu itam noo ngi jégalu kàddu yi dañoo jaaxle te amuñ lu yow rek moo tax ñu ànd ak ñoom ñëw jërëjëf. xalaat yi yëpp it maa ngi ci. alhamdulilah. dafa am fu leen di nekk nag. Mm-hmm. Mm-hmm. lii sax daanaka mën na mën na mën na koo mën na koo doon. yónnee naa ci. Mm-hmm. nañ bàyyi ba xam. nu mm-hmm. ñuy def nu ñuy foofu moom mën naa doon tàmbale. te lu mel noonu laa doon nekk. Mm-hmm. loolu lii yàgg yàgg naa ko xalaat bu yàgg. yàgg naa ko xalaat bu yàgg ndax euh, suñu dajee mu rëy mu fi defoon Touba. ba suñu Abdou lu ma ko wax. waaw naa ko tey jii waxtaan naa <laughs> ci man ba boobu tiit maa ngi ci. waaye dafa am bu ma leen dig rek. néeg gi nag loo mën na mën na mën naa bañ a mën naa bañ a ndax maa ngi leen déglu ci àtte boobu. Mm-hmm. bu ñu àttee ba noppi. Mm-hmm. danaa xam ne. alhamdulilah alhamdulilah. xalaat ji ma xam ne mm-hmm. maa ngi ci woon. muy xalaat ji. danaa seet. na ma ko àndee bokk yi. Mm-hmm. jullit yi fi ne bokk kilifa diine yi fi nekk mm-hmm. ñu waxtaan mm-hmm. wax leen bëgg wax leen bañ wax nos ko loolu foofu rek lañu ndax ndax mbirum mbirum réew la du mbirum moo xam ne wax rek mbirum réew la mbirum doxinu réew la te réew mi wax dëgg yàlla réew mi lislaam ba quatre-vingt-quinze ci amatul lu dul nag faj ci lu naqari Eh, loolu loolu loolu suñu bokkat mu ko war ko mën a fekkee. ndeysaan ndeysaan suñu bokkat mënu ko a fekkee ndax ah, kon loolu na ngeen xam ne ci ngeen ma fekk. Mm, mm. fi ngeen ma fekk. nii ko suñu waxee nii la nii la nii la ci nekke ba ba ànd ceeg moom. alhamdulilah alhamdulilah ci ngeen ma fekk. maa ngi ci. lii ma leen wax fekkoon na ma. ma wax ko sama làmmiñ ma wax na am na loo xam ne buñ ci àggee. man damay woote damay danaa woote kilifa diine yëpp ci Tuuba teral leen nu waxtaan seet leen bëgg ak lan bañ. mu déposé ko moo xam ci président la jëm moo xam assemblée la jëm loolu rek koy faj waaye wax yii génn du tëj génn génn du ko attee ak jërëjëf loolu koy dañ koy delloo ci yoon dañ koy delloo ci yoon constitution bi ci dañ koy delloo waaw benn ñu ñu nangul ñu leen bëgg mhm. wala ñu ñu soppi. alhamdulilah soppi seen question rek wala nangu. jërëjëf Mbacke jërëjëf. ñaar yi rek jërëjëf Mbacke. loolu moom fi ngeen jigéen ma fekk. jërëjëf maa ma soññi. jërëjëf Mbacke. waaw loolu rek la loolu rek la dafa am fu ma leen doon nekk rek. dafa am fu ma leen doon nekk rek dafa am fu ma leen di nekk rek. waaye nit loolu ginnaaw ginnaaw daa ngi àtte suba. maa ngi déglu àtte bi rek. tawarkal nañu àtte ba noppi. benn bu fekkee ñu woyefal bàyyi mm. du tee ma ma ma ma ma continuer xalaat ci moom. seen ñu seet nan ko nan nu mën a amee. waaye bu fekkente ne nag at na seen at def lañ bëgg a def. Mm-hmm. foofu du ma ko du yàgga ko bis laay daal di woote. Mm-hmm. kilifa diine yëpp. matériel yi alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. loolu ci ngeen ma fekk. jërëjëf Mbacke jërëjëf waaye nag dal nga suñu xel lool lool lool dal nga suñu xel lool dëggal nga suñu yaakaar jërëjëf. dafa fekk ne dafa fekk ne maslaa rek. Mhm. il faut que nu maslaa. Mhm. waaye waaye nag. Mhm. mën noo ñàkk nag. am na loo xam ne mënuñu ko ñàkk. dëgg la fu <laughs> am fu mu war yem. Mm, dëgg loo xam ne mënuñu ko ñàkk te loolu dañ koy topp. dañ koy topp ak ñoom. Mm-hmm. muy doxinu réew. Mm-hmm. Mm-hmm. ba mu dellu ci ñu ànd ak ñun ci ñu bëgg wala ñu ko topp ko si. tawarkal tawarkal tawarkal tawarkal war na leen waaw rawatina Sénégal gii sëñ Tuubaa nag. Ah, waaw moom moom. Ah. wóorul la mu ñu mu alxuraan wóorul ci am mën a mën dara. alhamdulilah <laughs> Moussa Moussa jot na cant waaw. sëriñ bi asalaamaaleykum. ñu ngi lay nuyu bu baax ci turu mbooloo mi. di la ziyaara bu baax. di la jéggalu bu baax. alhamdulilah. di feddali suñu njëbbal ak suñu taalibe ci yow. gis ci yow rek jëmmi sëriñ Tuubaa ji. gis ci pas-pasam ba gis ci bëggam ga. gis ci liggéeyam ba. yàlla na nga fi yàgg lool lool lool te wér lool lool lool naadam yi nga yóbbu ko yëpp ba mu sës rëkk te ñu ànd ko yow suñu xel dal na suñu xool sedd na dañoo waxoon ne bu buñ dikkee fii fi yow bëgg nga dikk sab nopp loola ñun suñu ajo faju na man nga ci zahir man nga ci baatin benn bu nekkit boo ci jógee aajo dina faju te kaddu yi ñu fekk nga wax ko te saa saa bu ñu masee tase ak yow wax nga ko xam na ne yow yaa ngi ci yàgg ci ci nga nekk ci lañ lay fekk bu ñu demee ci lañ kon gëm nañ ne yow yaay suñu wéttal yaay suñu ndimbal yaay suñu jëwrin te mat nga lépp sëkk kon ñu ngi ci sa gannaaw di la yaakaar te biiru ci yow di la làqoo te la ñaanal faw di la seedal Cheikh Abdou Samad mii sànq ci yoroo dama ko nuyu mu ne ma gëj naa laa gis ma ne ko jàmm bari rek waaye saa bu jàmm ñàkkee danga nga ma gis la nga gis saa bu bët xonqee ba suñu xel dem ci yow suñu xel dem ci moom def ko muy suñu hamzatu wasl boo xam ne suñu diggante ak yow moo fi dox saa su nekk te yitte ji ñu am daara yitte ji mu am mooy yitteem moo tax moom it ñu ngi koy seedeel di la ci sa kanam ko ñaanal di sàkku nga ñaanal ko ba nga xam ne yéenam yii mu am ci liggéey la liggéeyal to Tuubaa lépp dina àgg di sant bu baax di gërëm bu baax wala ngeen xam ne ñun ñu daal kenn leen ci yéen rek <laughs> loolu rek mooy Dakar.